bala ñoo sori salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Xaadim ñu ngi siyaarte nuyoo di ñaan suñu borom defal ñu jàmm te defal ñu tawfi ak xéewal may ñu xel mu set ba li ñu ngi laaj ñu fas yéene ko seq ak yow ñu mën cee tontu lu leer jërëjëf. li ñeem yëpp li yéem ñëpp yéem daara yëpp yéem àddina mooy Daaru Rahman gàmmu gi maam am na ñuy wax ci seen xel sax daal ne. gàmmug Daaru Rahman liñ ciy dépassé ci xaalis est-ce que ñoom ñoom xaalis boobu fan lay jugee ci wàllu budget bi ñu dugg ci gàmm gi. Ah, jërëjëf sëñ Xaarim xam nga mbir mi dañ ne la caaxaan yoo xam ne des ko organisé sax mën naa gën a rafet sax dëgg goo xam wuñ ko bu yàlla dogalee nga nekk ci dëgg na boo ko organisé suñu borom dara cay dimbali ba nga amee ci lu kawe njort loo xam ne ni ki xamut day yaakaar ne lii yaa ngi ciy dépassé loo xam ne ni ëpp na li mi li mi li mi li nga li mi gis te fekk na demewul noonu. fii loolu ñu bare bare li ñu yaakaar ne mënuñ ci dépassé dépassé wuñ ko ci waaye dañ ko organiser organiser goo xamante ni boo dëkkoon mbuusum ndox boo ko fi indi woon sax boo dikk dana am fu mu xaj ndax dañ ko tegale escalier yi bi bi njëkk dafa jub jub goo xamante ni bool bi beneen loo ci tegaat rek day jubaat nga xam ne organiser organiser goo xam boo indi woon mbu sa ñeenti mburu tam jëm ci juróom benn téeméeri nit buñ dikkee am nañ koñ lay booleel koo xamante ni kenn képp ku fi indi lu jëm ci wàllu mburu ci moom lay dem am na koo xam ne ku fi képp ku fi indi lu jëm ci wàllu ndox ci moom lay dem am na koo xam ne képp ku fi indi jëm ci wàllu ceeb wàllu diw wàllu soble ak yeneen yu mel nekk noonu noonu lañ ko organiser daal nga xam ne daal lenn lu nekk tegee ci loxo nga xam ne amul lenn luy laatu amul lenn loo xam si nii ant borom nga xam ne jëkkuñ jëkk di ko boole di ko dajale kenn nekk dañoo xool li nga mane li nga xam si ni ñu def ko benn équipe kenn ku nekk ñu ne fii lañ bëgg nga féete ñu ko ci équipe bi nga xam ne moom macha allah daal organiser nañ ko daal nañ ko war a organiser. allah organisation bi jaar na yoon mais ginnaaw loolu yow nga dugg si ci wàllu li ñu dugg si ci wàllu liggéey bi maam nan nga ko organiser ak depuis kañ nga ko tàmbalee organiser ndax jàpp nañ ne yow bi nga jotee ci liggéey bi ba tey. ñëpp wax nañ ko liggéey bi ni mu yokkee dafa gaaw macha allah ni mu organiser dafa gaaw nan nga def ci sa xel ba organiser ko da nga am sa staff ci sa ginnaaw xanaa bu lay bu lay xelal. déedéet xam nga daanaka lool moom mën naa nekk waaye nag boo xoolee misaal bi loolu doonul ab taalibeem doonul ab sëriñam te yoon yi moom daanaka romb ak roy lay doon rek boo gisee lu baax roy ko boo gisee lu safaan daat koy romb su ko defee nag nan lañ defoon dañoo jëloon texte bi yoon wi yoon wi ñu sëriñ Saliou jaaroon bi nekkee si daara ji daara ju nekk ñetti téeméer fukk ak ñett nekk fa muy 313 di jaay sun ñu séddale ko ci néeg bu nekk lu mat fukki nit ak juróom jëm kaw bu ko defee loolu nag néeg bu ne day am jëwriñ am topp jëwriñ am lu ñaan troisième ñu dëgër ñi daal di yor peeru nag yi ñu toppaat daal di yor ndab yi mooy ndab yi ñuy añee ñu toppaat am ab tàngale bu tàngal am ko yor am ñi xale yi ndaw yi di yor soqi yi soqi nag yi ki si gën a néew doole daa nga boo xoolee mooy yor raxasu mi ñuy raxasoo pour añ bu ko defee nag organisation boobu buñ dikk buñ nekkoon ci daara ji boobu buñ jógee mënuñ copier waat ci lii tasaaroo waat nañ waaye dañ ko defaat ay daara daara bu nekk nag misaal bi ñu defaat ko ne nii ñoom la ñu féetalee jëm ci boisson lu sedd ñoom rek ñoo koy séddale ñii ñooy séddale jëm ci waañ wi lépp lu jëm ci waañ groupe bi koy séddale bi koy def ñii ñooy raxas barabu suturlukaay yi muy wanag yi ñii ñoom ñooy tàngal café gi jëm meew mi was yooyu yëpp loo xam te ni lépp luy xeet lu am ñu koy ñu ko féetewoo ñii nag bâche bi ñuy defar pour dundale guddi leeratu mawlid nabi gi ñoom ñoo koy féetewoo bu ko defee dañ ci def ñoom kuréel bu ma la wax nag rek am nañ ci lu ñuy jaayante ci seen biir kuréel nga xam ne buñ dajalee bis bi lépp benn temps la bu la joxee sa sa addiya li ñu ci am na ñoo xam ne liñ leen di jox liñ ciy defaat ko ëpp ngir bëgg côté bi ñu nekk ma daal euh, di suturoo am na ñoo xam ne ñoom ñooy ñooy dalal gan yi def benn bolok nga xam ne seen borog bi basan comme ça fexe ba bu bu sa kër ñëw fii dundal fi guddi la moo dootum ranke dootum ranke ci tëdduwaay dootum waay dootum dootum ranke ci ne am na nit ñoo xel am koo xam ne fexe ba ne nga mën am foo xam boo fa demee mën a charge sa portable normal koo bëgg jot ci sa jot ko loolu tam day gën a dalal xel waaye daal su ma demee tamit seex mm, mi xam ne mooy suñ seex mi tëdd nii mooy trésorier yi mboolem Daaru Rahman nga xam ne ñun am nañ suñ trésorier daal di am jëwrin daa daayira yëpp bu ci ne am na jëwrin amaat jëwrin joo xamante ne te a jaar lañ koy jaare nga xam ne am na ci loo xamante ni looy jëwrin jëwrin moom sañ-sañ bi mu ci am doo ko ci te donte loolu yaa ko yaa ko daal mooy bi dañ la koy bàyyee nga nekk ci àllaseer téye ko def ci sa kéemtalaay kàttan ba jekku mbir mi jekkin woo xamante ni boo doon tëdd di sax waxtu bi accès day mel na ngay jugal rek jubale ca la nga nekkoon parce que loo doonatoo ndax ko xaral àggu ci tari lii moom des koo jàng si tari rek lañ nekk daal. macha allah la résumé nañu li nga xam ne ni moo xew ci gàmmu gi résumé nañu li nga xam ne ni mooy liggéey bi. mais ren ñu am ci benn innovation mooy Univers yi fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi saa yu ngeen ko soxlaa jëwrin loolu ban gis. waaye Univers TV ca kaw ca kanam xam nga olof ne man du sant ku ma defalul dara. te bii mooy sa ñaareelu yoon boo xamante ni comme jataayu bi ñuy def jataayu ndongo yi ñëw nga couverture ko fas yéene ca def sa kéemtalaay sa kéemtalaay kàttan ñu ngi ñaan suñu borom yokk ko mu jëm ca kaw ca kanam parce que mbir mu mën a doon tam ah, mën naa tàmbali ci lu néew waaye nag man suñu borom mën na ko dimbali mu màgg ba jëm ca kaw. loo gis nag lu mu mën a doon groupe presse bi gën a rëy ci àddina ci benn micro ñaari ñett ci lañ tàmbalee macha allah nag sëñ Sall waxoon na ne mbiram ci suuf lay tàmbalee màgg jëm kaw yàlla na la suñu borom boole boole ci mbirum sëriñ Sall mii tàmbalee ci suuf màgg jëm ci kaw waaye lu tàmbalee ca kaw lu mat rek wàññi ko ah, waaw ah, lu mat rek wàññi ko ginnaaw nag ma tëggoo leen yéen a ngi judd doonub leer mag leen ba doon xale bu dëgër parental màgg ba doon waxambaane ba suñu borom def leen ay màgget loolu lépp suñu borom mën na ko yàlla na leen ko def rek sa kaw ca kanam waaye daal fekk gi ngeen fekk fii ci xel kom wax dëgg yàlla xol sedd na ci lool univers daal li leer rek yàlla suñu borom dimbali ko mu doon leeru àddina tam doon jantum jolloor nga xam lu dem rek day gën leer amoon ngeen ko muy suñu jëwrin comme niñ leen ko waxee woon lépp loo xam ne tukkee na ci gàmmu gi da ko am en direct ci univers TV déwén incha allah ñëpp danañ gis gàmmu gàmmu gi nga xam ne nii moom la waa Dar Rahman gàmmoo ci fan yu néew dana tas ci àdduna maa leen ko wax jërë ngeen jëf. wàllu berne kafe gi ah taxaw a kenn ci jëwrin yi sëriñ Naar Seye bala ñoo sori dañ ko jox mu nuyoog mbokk taalibe yi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne ñu ngi lay siyaare bu baax baax di la jox sa wàccuwaay te xam ne tey ñu ngi ci bisu. Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ko dundal ci farata comme ni ko Serigne Touba daa defee ñu am ci ndigal loolu aman ko ci Serigne Saliou kon fas yéene koo dundal tey jii noon daal lañ ko fas yéene doxalee nekk ci wàllu berne yi kafe gi kon foofu lañ ci commencé gun. waaw léegi comme niñ ko waxee ñu fekk la fii ci kafe gi ku ne xam na ne moom gàmmu gi. li am solo ngeen ci yor muy wàllu café gi ndax ku xëy da nga ubbeeku te bala ngaa ubbeeku sax xel dana dem ci yéen loolu ban yëg-yëg ngeen ci am. loole moom dañ ci am mbégte mu rëy ndax xam ndax ku xam-xam ne Serigne Saliou ak nekkam moom nii dong la ko daa dundalee wax ne bis bi su ma saan agsi lépp lu ci waay man ci berne ak ci jaamu yàlla ak ci alxuraan ak xasida ak salaat dox la nabi nga def ko te berne doomu aadama yi. Serigne Touba moom sunu yaakaar nga xam ne moom képp ku xam rek xam ne ci loolu la ko xaman kon bis bii ñu feet li ñu ci wàllu ndékk yi ak lépp loo xeetoog loore ba jëm fii ba kere gàmm gi jeex rek ba ñuy delluwaat ñun lañ ko féetali bu ko defee tamit mbooloo mi moom lañuy ñuy dabu seen bànneex ci noo gën a gën nu gën a xéewalee rek gën gën a noonu lañ ko noonu lañ koy defalee lu jëm ci wàllu meew am na fi lu jëm ci wàllu kafe am na fi Euh, ndékk yi lañ doon defar léegi mooy lu jëm ci wàllu ginaar yi yooyu tamit ak li ci toppaat rek ba keneen ki yees fii taxaw fi nga xam ne ñii ñoo yor wàll cet gi nga xam ne tey képp koo xam ne nii eh, jóge nga ci waañ wi wala nga jóge feneen boo ñëwee ci ci biir wanag wi ngay dugg ñii nag ñooy saytu lu demee noonu ñoo koy raxas duy ndox teg fi fexe ba képp ku fi ñëw rek sa aajo faju ñu taxaw seen jëwrin jëwrin nuyu naa la waaw ñu ngi lay siyaar ba jëwrin di siyaare mbokk taalibe yëpp yëpp yëpp képp ko fi dëgg sa tànk rek ñu ngi lay siyaaru ba di la jox sa wàccuwaay waaw ah, di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax. jawrin eh, comme ni ñu ko waxee. yéen a yor wàllu cet gi ci kër gi. maanaam képp koo xam ne nii soxla nga ci wanag wi rek maanaam boo dikkee dañ fi fekk jumtukaay yi nga xam ne nii moom nga soxla ngeen yor ko yooyu depuis kañ ngeen ko yor. waaw mën nañ ne depuis bi gàmm gi sasoo ba léegi ci côté boobu lañu nekkoon di ci def suñ képp la kàttan donc ànd koog nit ñoo xamante ni tamit gëm nañ ko te bëgg nañ ko tamit di si ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ndam ñu ñëpp rek ndax loolu rek moo ñu tax a ñëw gàmmu ci maanaam comme bu ngeen koy def maanaam ban yëg-yëg ngeen ci am ban yëg-yëg ngeen ciy am ak gan yokkute ngeen ci gis. waaw man mi koy di def di ci ak samay naataango ñoom man ba am naa ci yëg-yëg te ñoom tamit defe naa ne am nañ ci yëg bu rëy rëy ndax dañ koy safoo dañ koy ndamoo te dem na ba yeggi um, fële nga xam ne fële leen dëkk Mbuur ba ci suñuy mbok nga xam ne bu ñuy ñëw ñoom ñoo ñuy waajal sax lépp luñ ciy def ñoom ñoo ñu koy jox kon am nañ ci yëg-yëg bu baax a baax ak contentement. macha allah hmm. jëwrin bég nañ ci bari jëwrin nuyu naa la. waaw sëñ bi maa ngi lay fay sëñ Xaadim waa Univers TV di nuyu waa àdduna du nuyu waa Xelkom Daaru Rahman di nuyu ndongoy Serigne Saliou yëpp di waxtu jërëjëf Serigne Saliou xol sedd na nii nuyu ñëpp. ndigal ñu gis ba nga jàppee ba tey baaw yoo ba ngay ndaw ba ni ngay mag sëriñ bi yar la def ci yow li nekk ci yow tey nga ñëw taxawu fii di taxawu li nga xam ne ni booy gàmmu gi nga am ci baas bu am doole boo xam ne saa bu gàmmu jotee rek xel yi day daj ndigal. loolu nan la waaw xam nga sëriñ bi moom day koo xam ne jàpp de ba mu amu ci ñàkk xam ne waaye sëriñ moom ko xas ba xam moom noo fexee indi nit mu xam ko ngay def ndax moo tax ma ànd sama ñaari xëy di sëñ Cheikh Gassama sëñ fa euh, sëñ Cheikh ñu ñëw ma ànd ak ñoom pour gàmm si mais sëñ moom dinaa jàpp naa ko ba naa moom sëñ Saliou amul te du am ndax sëñ bi day ànd ak daa ànd ak ñu ànd gor daa xool liñ bëgg lépp mu defal ñu ko te liñ yor lépp mu bàyyi ko ak ñun. waaw moo tax daanaka ñun yéen a ji ñu am mooy chaque jour ñu ngi xool ñu def pour gën a dolli liggéey bi pour gën ko jëmale kanam mais ànd see suñuy mbokk taalibe wax dëgg yàlla ñu am si passé ay xale yu ndaw moo tax ñu am fit. xale yi ñoo la may fit nga mag mi nga magal leen mais ndigal yow wàllu budget bi laa lay laaj budget waañ wi mën nañoo xam ñaata la. budget waañ bi nag ren dañ koo def deux parties boo ko teg budget bu mag mi nga xamante ni day jógee si sëñ Galas Ndiaye. ak ñu mel sëñ Moustapha Ba ak sëñ mais ñun li nga xam ne ñun ñoo ko jaayanteel suñu bopp rek toll na 500 nangam mille. macha allah bokkut li nga xamante ni euh, moom la waa daara ji war ak ñun. ñun daal li ñu dolli suñu dépasse téeméeri junne ak nangam la dolli suñu dépasse nga xam ne dañ laa jox dépasse ba nga ut sa xaalis dolli si téeméeri junne ak lu topp la xam nga àdduna moom euh, jamono ji moo nekk loxo si liggéey Sëriñ Tuubaa fa si waay nekk ba di ko naw rek soo ko poussé ku la ko dàq ñëw toog. te xale yi ñun bi nekkee gone di gën a nekk gone dañ doon roy si mag ñi ñoom sëñ Jiiri Jataraak ñoom sëñ Abdou Bakke ak ñooñu pour xee xee ma am kattan bu mën def li ñuy def moo tax biñ si agsee daa yomb ndax ñoom dañoo xaalal yoon yi ñu ànd ak suñu jëw ñoom suñu muccaam ba tey bàyyiwuñ ñoom yàlla moo tax dafa yomb daal yomb na ndax da liggéey fekk ñi lay jàppale si ñoo la gën a bëgg li ngay def waa Mbàkke ñeeg waa Abidjan yi ñoo gën bëgg ñun ñun ñu ko moom ñun ñu jàppale ñoo ko moom ñoo ñu ko gën a bëgg gën koo ñemee moo tax yëf yi méttiwutu suux si ñun da ngay toog ñoom ñooy def lépp da ngay organiser defal lii defal lii mais yëf daal sëñ bi teg na si loxo lépp yomb na wax dëgg yàlla. macha allah si ndigal. Univers TV bu bees la. daanan ñëw di gàmmu di dem. tey ñu dem ba média di la fekk si. loolu lan nga ciy wax. waaw mooy yokk gi ma doon wax sëriñ bi ndax yéen ñi fi nekk lépp daanaka si alalu sëriñ bi ngeen. kon tey bu dee bañ daan ut yëfu jàmbur mu ñëw ba tey ba ñu si bokk moom ko ñëw da sot sotti sek des ñu leen ñaar yàlla ni mbirum sëriñ bi yokkoo rek ngeen yokkee noonu ndax yow da nga di ko baax di ko bëgg sëriñ Saliou yéen ñaar du ngeen ñaar daana kenn ngeen mu yar la di koo fonkoon ma xam ci dara nag ba tax kon boo ñëwee nga def nii damay jàpp ne mbirum sëñ bee sëñ bee ñëw ci ak boppam rek i des na yeneen nañ ñaan yàlla mu nekk télé nga dem sa kanam te mën na ko tey lépp fii la amee nag waaw ngeen parce que fi rek te góorgóorlu di ñaanal galoog ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di waaye daal sëriñ Saliou daal ñun amuñu fayam. waaw suñu xaarim ngi ziare bu baax di ziare ñi ñu bokkal waañu yi eh, tey baalu ak ñëpp nag di la baalu àq yow mii nga xam ne yaay suñu journaliste bi nga xam ne yaa ñu teewal fii tey ñu ngi lay ñaanal seen site bi mu jëm ca kanam kanam fu site bi àgg rek mu àgg fi ci barke Sëriñ Saliou Sëñ Xaadim gàmmu gi ñoo ngi ko tàmbali woon yaakaar naa jamonoy 2002 maanaam ñu nekkoon ci ay tuut tànk waaye bi ñu ci nekkee ay tuut tànk taxut maanaam euh, biñ ci duggee tamit ah ñu ànd ak suñuy mag waaye mag ñooñu nit dafa mel ni ñoom dañoo jëloon dugg ñu seen biir nampatal ñu ñu di ñu liggéeyloo ci waañu yi bañ dem ba tey jii ñu xëy daan nañu yow yaa jiite waañu waaye taxul man ma jàpp ne maa jiite waañu damaa jàpp ne. man maa war a jiitu di liggéey gaa yi topp sama ginaaw ndax damaa jàpp ne lu war a liggéey ci waañu rek man maa ko war a liggéey jëwri lañ ma jàppe waaye man maa jàppee ne man ñoom gars yi ñooy sama jëwri man maa topp seen ginnaaw war leen a liggéeyal ñu gis ne saabu gàmmu taxawee yaa fi njëkk yaa fi mujj bu dee ci wàllu njëkk gi yaay ndugg indi bu dee ci wàllu dem gi yaay raxas bool yi delloo te ànd ko ak mbooloo loolu yow boo duggee ci suufu xel kom ban yëg-yëg ngay ah xaarim loolu boo ma ko laajee danaa ci sawar a tontu lool ndaxte suuf Xelkom amul bànneex yàlla rek la am te bu may jugee Touba mën naa jugee Touba ak i jafe-jafe waaye bu ma duggee Touba Xelkom lépp dañ barki Sëñ Saaliw su ma duggee Xelkom du du ma yëg benn benn benn jafe-jafe sama kii mu jafe-jafe adduna jafe-jafe ne jafe poos jafe-jafe yaram du ma tuuti ma ci yëg dara ndaxte sëriñ bi rek laa yëg boo gisee ñu fi jiitu bëgg maanaam ku ñëw du tum ku ñëw dana fekk berne yi tegee ndaxte boo xoolee yaakaar naa bu ma jumul maa yow ànd bi ñu ñëw bi ñu noot na dugg njëkk yàlla laa la woo bi ma la woo ñun ñoo ànd jël ndugg mi ñëw bi ñu jëlee ndugg mi ñëw dañoo agsi rek yow sa pas-pas bopp nga ne ma nañ daal di taal yaakaar naa ñu daal di daal di jàpp ginaar taal daal ci nekk bi gars yi dikkeet ah, seen xool sedd na te ñun lu sedd seen xol rek lañ bëgg suñ liggéey bi ñu liggéey nii maanaam ñu ci gagné nii mu ñu ëppal ay milliards. liñ ci gañe nii mu ñu gënal ay milliards ndaxte li tax mu ëppal ay milliards mooy xoli doomu adama yi na sedd ñun daal ñu ngi ci cant gi rek ni ko sëriñ bi waxee woon ni ko sëriñ bi digale woon jaami ci lañ nekk ñu ci cant gi daal di jàpp te bëgg ngir dong yëpp bëgg du dong yi bëggee rek ñun mel na ni ay milliards lañu ñu fay. Abdou Gueye mënuñoo wax ba jóg. waaw tey nag taal nañ maam euh, win mbana. waaw taal nañ win mbana ci añ bi te reer bi ñëwagul. maanaam euh, mbooloo mi fi nekk rafet na njort ne liñ taal danañ ci mën a xéewlu ba kii ndax maanaam euh, reer bi rek liñ taaloon biig yaakaar naa maam war naa mat dix cin te maam kii nañ ko ba mu daanu kon lii fi nekk ci xéewal tey yaakaar naa maam dana dana dana demaat comme démb rek. damaa for léegi ci weewu nag ñu ne ma da ngeen di bëgg a jëndiwaat aw nag te déggoon naa ñu ne ñeenti nag nekk nañ fi. waaw waaw nag boobu ñu doon jënd sax ñëw na léegi nii jënd nañ léegi nagu juróom fukk indi ko loolu ci li fi newoon Serigne Saliou amul tànk ginnaaw léppam tawfeex la. bi ñu xëyee gars yi di jeexi jaaxaak sikki saak ci diggante bu gàtt la maam mbokki taalibe yi jaayante maam génn maam wàññ góor yàlla yi ci waañ wi ñoo jaayante benn nag ci juróom fukki junni diggante bu gàtt ay minutes yu néew loolu maam pas-pas bi sëñ bi defoon ci donga yi mel na ni maam fu mu ne nii lii lu tay lii firnde na ko kon li ñuy gën a sant sëñ bu baax baax gën a takk gën a jàpp. depuis kañ nga tàmbalee gàmmu si. man de ba ma ba ma dalee gàmmu seeg léegi xam naa ne moom fukki at ak nangam am na ka danga matul ñaar fukk ba may ba may ba may ñëw di gàmmu si ba sëñ bee ngi fi nga xam ne danaa nag yaa ngoog rey leen ba doyal ñuy rey nag suba nag ngoon nag bu ñu bu ñu reyee ñu ni sëñ bi woote na nee na su nañ def rek ba mu doy dara manqué wul ñu ubbil nu magasin keroog ma duggee ca magasin ba dama tiit ndax dañoo tegale bidon nga diwlin yi tegale saaku ceeb bi tegale ñebbe ji tegale lép dara manqué wul ci biir magasin bi Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokki leeram kenn mënu koo fay ndax da dañoo jël suñuy parental jox ko amuñu benn njariñ mu yor defar da mu baax mu delloon nuy jariñoo yal na yàlla yokk ay leeram barkeb Serigne Touba. comme ñu leen di doomam Mouhamadou jaañ moo njëkk a yor lii Galas Ndiaye yor bi mu ca jógee la ko teg ci loxoom jëwrin ji Galas Ndiaye ci Mouhamadou Diagne la ko jëlee te yaayam toog kon day mel ni jëwrin ji mu ngi fi nga fekke démb fekke tey. xanaa di bég rek nag te xam ne loo gisee day yokku waaw ñu ñaan nag mu bokk ci site yoo xam ne yii moo gën a kawe ci site yi fu site yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale ndax lii dafa neex ndax ñu ba tuubaa dawal seen oto ñëw ba fii. di nu jël loolu rek di yëg yëg la ak yëg yëg la ak yëg yëg la kon nag ñoom fu ñu fu ñu fu sit egg rek yàlla na leen fa yàlla yeggale fu sit egg rek yàlla na leen fa yàlla yeggale bis bu ma jëkk a gàmmu si damaa fekk ngeen yër seen bidon ngi diwlin yooyu leen seen maam daan jox di jett rek ci cin yi maa dagg pot tamaate nattal leen ni leen nii la ñuy def waaye du ngeen jël di sutti bii bii ëpp bii ngeen ni ah ndax lépp booba dane gaañ dara manqué wul mbàkke bàllay sa yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla yokk ay jëndeem ci jana maa jël pot jàngal leen nu ñuy nattee da ngeen daan jël rek sotti ci ba mu yegg dara du manqué ngeen sotti rek barke Serigne Touba maa leen indil natt dangeen ngeen déggal ma ci lool nag doyloo ma ci lool. man daal xam naa ni yéen daal gore ngeen de yal na leen yàlla fay. da baax rek looy tàggoo. xanaa di ñaan yàlla ci barke Serigne Touba lépp lu ngeen yóotu yal na ngeen ko jot gàmm gi yal na ngeen dem ba kenn ku ne mën koo gàmm. kenn ku ne mën koo gàmm mu yëpp ni gaañ ñëpp ni li ngeen daan wax rek nu toog ba mu doy ba des li ñëw ñëw bu yóbbu yàlla yombal la leen ko ngeen dem ba yor ko ba yor ko ba yor ko ba mënatu leen kaayo ba màgget seeni doom aw leen ci barkeb Serigne Touba Mbacke yal nañ ko fekkee dé taxaw nañoo jëwrin Serigne Saliou dégg ko am pasif lool seriñ bi nuyu naa la waaw suñu xaadim ginnaaw bi ñu sant yàlla jëli ci yéen def Serigne Saliou bu baax a baax ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare bu baax a baax ci bis bu tedd bi di bisu gàmm ñu koy eh, amele fii ci xel Xelcom Daaru Rahman ñu ngi lay ziar bu baax di la delloo nuyoo bu baax a baax. ci lu gàtt ñu tënk ko Serigne Saliou ñu gis euh, lii bari lool néeg ba mu fees ngeen wàcce ko ay berni ngir mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji war fee gàmmoo lii ba yëg-yëg ngeen ci am. waaw waaw jërëjëf dañuy santaat bu baax Serigne bi ndax ginnaaw yàlla Serigne bi moo tax ñu man lii. Euh, ndax ni mu ko waxee gudd gàmm moom ni mu koy waxee gàmm moom bi sukkareen aw la xami rek mooy nay nay saf suukar tey niin noonu la ko sëriñ bi bëggee sëriñ Saliou nag nga xam ne ku ko xamoon ci woote gàmm ci daaraam yi da ko doon insisté da maa ngi koy woote ci di ko woote sama daara yi nga xam ne ku fa dem xam ne bërëb bërëbu gàmmukaay la loolu nag moo tax ba tey jii ñu koy doxal ñun ndaw ñu ñu jug takku nekkoon ci daal yoroo yaroo fi ay nit daal ñëw daal ñu ko defal ñun ba ñu nekk daal di di commencé ci benn di def di côté suñuy ñaar fukk ak suñuy fukki dërëm di da ko defal suñu bopp ba tey jii macha allah ñu ñibbi kenn ku ne nekk sa bopp ba ñëw daje ah di dajale suñu addee at mi jot ñu dajale di ñëw def lépp ba si tey jii berne yu mel nii di kenn ku ne andi sa mbooloo ngir gàmmu xel Xelkom comme suñu Saalum moo ne woon bërëbu gàmmukaay la ku ñëw sama daal di nga xam ne bërëbu gàmmukaay la moo tax luñ ci def rek nañ ko suñu xaadim. Euh, daanaka mënuñoo mun duñ la wax ne fii la mën a commencé foole fii lay yem ndax budget bi yemul fenn ñun ba koroog ñuy dem dañuy jënd di jënd gis nga jëriñ Mamor ñu ngi koy nuyu apasas bi mu xëyee dafa delluwaat Touba ndax démb liñ jënd rek ci ay ay ay xeetu banso kanet rek ay furi rek dañ day ëgg un million yu teg nangam ndax furi yi rek day ëpp day ëpp day mat cinq cent mille wala lu ko ëpp ci xeetu furi xeetu canette ñoom ñoom ñoom xeetu boisson yi yëpp xeetu boisson boo bëgg boo boo xalaat rek mi ngi ci biir boisson bi te loolu rek budget bi bu néew ba néew day ëpp day ëpp huit cent mille jëm ko comme loolu xam amul budget teewul yeneen ñu sedd yi ñu defaraat di ko jox nit ñi pour ku xi ku naan rek ñu fekk la faak lu seddul di saf suukar di la ko jox kon budget bi moom ma ma amul àppukaay ba tey jii fi may waxee yow jëriñ nga Touba di jëndaat yeneen di indi dolli kon amuñ amuñ bés ñun. macha allah Serigne Saliou Univers TV bi ci yow li nga leeral leeral. waaw Univers TV moom ku xam-xam ne ñun suñu site la. site la boo xam du tey dong lañ ci njëkk wax du te ñaanuñ ci yàlla mujjee wax tey te ca kaw ca kanam yow it suñu xaalim kenn du yow ndax. ci suñ Modou nga ku ne xam na ne daan nañ gàmm mais buñ daan gàmm gars yi dañ daan suñu soble rek dem añi yow nga indi yu bees. ah di def yoo xam ne saa boo ñëwut day manqué. nan la koy yëg. waaw loolu noonu maanaam jamono mooy dox. Hmm. xam nga bu njëkk da nga daa ci bu ceeb rek teg ci ndawal rek suy ci soble daa di dem mais jamono moo toll foo xam ne léegi il faut que nga boole ci yoo xam ne maanaam ceeb bi ku ko gis même boo xiifutoon ni da am yéenay lekk muy xeeti orne yi ñu ci def xeet. daa ci ceeb rek mais lay xaar. wés bi gaa yaa nuyu naa maa ngi lay siyaar Serigne Xaar siyaar naa wér wér. Baba yow moom boo ñëwul ci gàmm gi gàmm gi doo am xorom. gaa yi dañuy xalaat sax jël oto dem jëli la. macha allah tey nga tàbb si waat ci suñu biir. dégg nañ ci yow de. noo ko yëgee loolu ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp ñun siyaar sama joonu ñëpp da ngeen baax rek mais li def lépp yéen ma ko daax fuuf fuuf fuuf fuuf fuuf siyaar nekk ci liggéey bi bi ñëwee daal gis nañ liggéey bi mu ngi doon dox bu baax a baax a baax ñëwee rek tàbbi ci ànd ak ci liggéey bi ñu doon togg añi añi pere ni moom lañ doon moom la ñuy séddale jox ko jaamu yàlla ndeysaan mhm. baaba yow mën nan ne waañu yaa jiite wàlluk mbana yi bu gaay yi indee kii wàlluk taal bi yaa ko jiite ak soxna yi loolu mbaa jafewul ci yow. ndey de jafewul wax dëgg yàlla jafewul ndax soxna yi moom wax dëgg yàlla ñu baax lan ñoom ñëpp xam nga li ëpp solo mooy ñoom ñëpp xam nañ li leen fendi li leen fendi mooy liggéey bi moo tax ko ci wax yëkkati lii wala defal lii rek day yomb trop day sawar pour def ko loola moo tax yomb na trop trop trop amul benn problème dëgg dëgg sama waa bëgg naa ci yow